population. Vous avez des ambitions pour la mairie? Non, j'étais candidat maire. j'étais candidat ah. maire malheureusement voilà voilà voilà yoroon na candidature mais c'est pas la candidature véritablement moom fi indi mais tey li may woote tey Podor soo ñuy waxee Podor nga xam ni dex mu ngi nii. ñu wax ni Podor presque jéeri la quand je dis jéeri mooy foo xam ni amul ndox. Mhm. tey ça c'est un problème de la SNDE mais dama jàpp ni yooyu yëpp. Mm. la mairie war na ci mën a porter un plaidoyer pourquoi pas même porter plainte à cette société jël un avocat porter leen plainte ñu régler ce problème technique. ok nga su ñu ñëwaatee tamit au niveau véritablement de la jeunesse tey soo leen xoolee actualité. Podor pour nga toog véritablement un mois fekk gisoo fa déggoo au niveau véritablement de la presse des problèmes euh, de la drogue mm-hmm. des problèmes également aussi euh, de la violence entre autres est devenue monnaie courante parce que mm-hmm. y a le chômage est la chose la mieux partagée à Podor mm-hmm. euh, presque y a que les Jakarta or potentialité lu am ñun ginnaaw Gàmbool soo déggee Gàmbool maanaam moy benn protection la boo fa ndox ñëwee mais ginnaaw loolu c'est des c'est des centaines et des milliers d'hectares yoo xam ne am na fa. Mhm. lañ fay def la culture du décrue depuis l'antiquité maanaam ndox bi su ñëwee avec euh, nawet euh, su delloo ñu def euh, des trucs qui ne marchent même pas avec le changement climatique mais pourquoi. Mhm. du ñu jël wut parce que pour man la la maire un maire danga war wut ay salon dem ci ay salon dem ci ay forum. wut wax le dañ ko fal mais il est incompétent su ma la déggee bu baax parce que bi ñu fi toogee ba léegi waxoo dara. genre non wax naa wax naa la instant yi comme si il est par exemple instant yi wax naa la am na ay infrastructures yu mu fi indi il fait du social ça c'est une vérité mais xam nga yooyu soo xoolee c'est conjoncturel man je pense que tey lan moo mën a indi une valeur ajoutée lan moo mën a créer ensuite Euh, loolu dama ko décrier même Aïssata Tall Sall man yàgg naa dem ci ay même bu mu nekkee maire parce que suñu nekkee yow sa bilan day yem ci ay goudron say bilan day yem ci ay lampadaire mais ça c'est l'État c'est dans le budget de l'État mais le mérite d'un maire ça ce n'est pas un problème singulier à Podor c'est un peu dans tout le département mooy dañuy déserté te du leen seen mairie du leen jaral ñuy jël avion jël business plan parce que chaque mairie am nga sa plan de développement dem défendre ko ci ay investisseurs nga indi loo xam ni c'est pas le budget de l'État mooy les fonds Euh, commun ak yooyu. mais fekk yow yaay indi. Mhm. yaay jéegaani wut man foofu en tout cas man euh, bi ñu doon jël maire di ko euh, président Racine di ko di ko teg foofu maire man de yaakaar boobu laa ci am. d'accord d'accord dinañ ci koy xaar ci loolu ba léegi.